jàppul caat moo daa ñu ngi dóor pour mu baax moo ngi dóor pour mu baax yoonu bëre la na non buur xale yi luñ fay jar day dam yee waaye ndi ku way neex na waaye tey général bu Malika ak Fils de Balla dañ fi war a daje ñoom ñaar tey de contrat di combat boo xam ne Assane Ndiaye bool production moo ko tëgg moom itam ndeysaan xam nga xam nga Thiatou Rebeuss tamit da ciy daje ak Alliance Baldé. ak Alliance Baldé loolu combat la da baax. hey hey hey hey. non neexul ba neexul ay bébé. xoolal bébé guy gi hey bébé guy gi. non xale baa ngi bëre Fatim xale bee mën a bëre. xale bee mën a Montagne gu suivre am na am na lecture Fatim. mi ngi bëre ak xelam. mi ngi bëre ak xelam. bébé guy gi na li def noonu la moom itamit di bañ a force action. non xale bi mi ngi bëre kaar. bi mu lambay lambaat xam ne baaxul dafa bàyyiwaat delloo si bëri gis nga mu ngi ko koy def mu ngi ko koy def mu ngi yokk mu ngi naas mu ngi yokk Fatim mu ngi seere eto bi. Ah, buñ tolloo woon doole ba léegi. mu ngi seere montagne bi Fatim mu ngi seere galgal ba da ngay dem kuy dem dangay dem caatu montagne caatu montagne xale bi xale la mu ngi seere eh lu am caatu montagne daan na Fatim. caatu montagne daañu. boobu bee njëkk dem loolu laa gis. ngay dem kuy dem da ngay dem caatu montagne caatu montagne xale bi xale la mu ngi seere eh am caatu montagne daan na Fatim. caatu montagne daañu. boobu bee njëkk dem loolu laa gis man buur